امر بالاستقامه ولزوم الصراط المستقيم في امور الدنيا والاخره وذلك يجسم مبادئ جب جبل جبنتي قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ومما يدل على أهمية الاستقامة ما يلي بقي سانت بربي سبحانه وتعالى دي جلتي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم di dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhaanahu wa ta'ala ak bàyyi xel doxalinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam si suñuy wax si suñuy pas-pas ak si suñu mboolee mi jëf mbokk yi borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa santaane al istiqaama al istiqaama moom mooy li nga gëm li nga fas ci lislaam nga jub ci xocc jëfe ko bañ ko wàcc loolu borom bi subhaanahu wa taala daf ko santaane mu santaane mooy sax jaar ci assiraatul mustaqim yoon bu jub bi ki li aje si ñu ci ñu mbiru aduna ak ci ñu mbiru àllaaxira loolu nag bu fakkante ne wax nañ ko ak li nga xamantene mom la ñi fi nek jamono ji mengo méngoo suñuy mbir jité ñu buñ ko gam gam le kon dinañ gis ne as siratal mustaqim mom mo wara a mën jubal ci li nga xamantene autorité autorité mom lañ wax mom lañ bëgg doxale réew mi muy ñoom ñu jub jubal li ñu leen jox jubbanti li fi nekkoon ci li nga xamantene dafa dëng borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu li mom moy sama yoon mu jub xocc fattabicuuhu na ngeen ko top wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili bu len top ñal yi yoon yu sew yi nga xamne fiñ leen di yóbbu mom moy safara te bu ngeen ko dafa yit ngeen wàcc yoonu borom subhanahu wa taala dalikum wasaakum bihi laallakum tattaqun borom subhanahu wa taala loolu la leen sant loolu la leen digal bu ngeen ko defee ngeen ragal yàlla borom bi subhaanahu wa taala lii wane solos al istiqaama muy jub mën na feeñ ci tomb yi ñuy tudd bi ci njëkk mooy borom bi subhaanahu wa taala dafa digal yonante bi alayhi salaatu wasalaam ak xeetu alayhi salaatu wasalaam ñu nekk ci al istiqaama ci njub moo tax mu ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam fa lidalika fad'u wastaqim kama umirt liñ la jox kon góorgóorlu nga woote nga woote ci ba pare fastaqim wala wastaqim na nga jub ci loolu ngay woote danga ci dëggu na ko jaarale ci yoon te defee ko comme ni la ko borom bi subhaanahu wa taala santaane wa man taaba maak ak képp koo xam ne jullit la ànd ak yow wala tatgaw te bu leen dévier jaar feneen innahu bima na basir borom bi subhanahu wa taala mu ngi gis mu ngi contrôler lépp loo xam ne yéen a koy def kon santaane boobu mu ngi njëkk bàyyi koo ci borom bi subhanahu wa taala ñaareel ba borom bi subhanahu wa taala dafay sant bi digal képp koo xam ne yaa ngi julli ngay ñaan sax ci assiraatal mustaqim bés mu nekk lu mu néew néew fukki yoon ak juróom-ñaar muy dix-sept fois jamono ji nga xamante ne yaa ngi jàng faate bu ñu waxee lu mu néew néew mooy boo jullee bu dee farata yi kese ngay julli kon nag bu dee dañ seet ak ay naafila moom mun naa ëpp lool borom bi wa taala bi mu lay waxloo ihdina siraat al mustaqim jubal ma tag ma ci assiraat al mustaqim yon bi jub siraat alladina anamta alayhim gayr al magdubi alayhim wala dallin kon jullit bi mu ngi ñaan loolu 17 fois lu mu néew néew bés bu nekk kon loolu muy ñaan daf ko romee ngoo warul ak loolu ñetteel ba borom bi subhanahu wa taala dafa leeral impact bi nga xamante ne al istiqaama muy jub da koy am adduna ak àllaaxira yàlla subhanahu wa taala ne wa an law istaqaamu ala tariqa la asqaynaahum maan gadaqa nee na nit ñi jaam ñi bu ñu juboon xoj tegu ci yoon wi bañ ko wàcc jëfe santaane borom bi subhanahu wa taala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 ginnaaw gi ñu jub ci loolu ñu tënku ci loolu nee na tatanazzalu alayhim almalaika bu ñu demee bay faatu malaayika yi dañuy wàcc seen kaw ne leen an taxaafu wala taxsanu bu leen tiit dara ci li ngeen nar a bàyyi fii ci seeni doom ak loolu yàlla moo leen yore wala taxsanu bu leen am njàqare fële ngeen jëm yowm alqiyaama وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نيغ لين دي بغال الجنه بيغا خامتاني نين نيو لين كو ديغون برومس لوون تي نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره نين نيو مينغو سيني مير ادناك الاخره لان مو وارال لي موي گم بي گم بروم سبحانه وتعالى بري جوب من لولو گندي ام يوم القيامه تلاج برومي سبحانه وتعالى مولن كدوخ mbokk yi jubug jullit bi ci diineem ak ci aduna dafay am ci anam yu bare bare bi ci jëkk mooy jubam ci diine bu la neexee expression bi nga xamante ne moom lañuy jëfandikoo jub jubal jubanti faw mbir yi nekk ci biir bi ci njëkk mooy at tawbatu nasuux jullit bi lépp loo xam ne mu ngi ciy sóobu na xam ne moom nit la tarxiskat la dafay juum kon saa su nekk nay dellu ci borom bi subhaanahu wa taala ji tuub li ñu tuddee at tawbatu nasuux tuub boo xam ne tuub bu sincère la naa fekk nekku ci leneen nekku ci loolu moom moo war a jiitu ndax nit nit dong la borom bi subhaanahu wa taala daf laa mooñee bindee la ngay def lu baax waaye yenn saa ngay tarxiis jàdd yoon def leneen li gën nag mooy boo tarxiisee nga delluwaat comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee nee na doomu aadama yëpp ay juum doomu aadama boo gis dafay juum sans exception yépp mu ne wa xayrul xataa'iina tawaabuun ñi gën nag ci ñiy def bàkkaar ñii juum mooy ñii dellu ci borom bi subhaanahu wa taala gannaaw biñ juumee tarxiis xam ne tarxiis nañ dellu ci borom bi subhaanahu wa taala kon loolu war loolu boo ko defee nga teg ci al istiqaamatu ala al aqidati saxiixa mooy nga jub xocc yar sa bopp nekk ci pas-pas bu ci pas-pas wér mooy bi borom bi subhaanahu wa taala sant te yonente bi alayhi salatu salaam matérialisé ko nga gis ko lim gëmee woon ko allaaxira gëmee ko malaayika yi gëmee ko nga fexe loolu ba yar ci sa bopp mel noonu bu dee meloo noonu rek li nga bëgg ci jub jub jubal jubanti du mën a am mukk ndax borom subhanahu wa taala ginnaaw gi dina la teg ay natt yoo xam ne boo moytul doo ci jóg kon pas-pas bu wér muy wéetal yàlla borom subhanahu wa taala bañ ko bokkaale ak dara diine doo ko jële fenn lu dul ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi jaar ci yoon bi nga xamante ne moom la jaar loolu lañ jublu ci al istiqaama ala al aqida saxiixa bokk na ci mu itibaaru nusuusi wa tarkul ibtidaa topp taxe yi ci lislaam bàyyi lépp loo xam ne lu ñuy sos la ci ci diine mooy jàpp ci li nga xamante ne moom mooy al axlaaq wal aadaat al xasana jikko yi nga xamante ne lislaam moom la gërëm nga fexe ba yar ci sa bopp gox bi nga nekk bu fekkente ne am na ay aada yu ñuy tuddee ay aada yu rafet yoo xam ne lislaam ñëw na saxal ko it nga fexe ba góorgóorlu ci bokk na ci talabul ilmi shar'i sàkku xam-xam xam-xamu diine bañ a wax rek ne bu ma amee juróomi saar jullee ko jeex na maa ngi koy jaamu yàlla loolu doyul ci jullit sa pas-pas ni ngay jàngee ci ne farata ñaari farata la li ñu tuddee fardu ayn ak fardu kifaaya muy obligation d'ordre individuel loolu kenn mënu la ko defal te loolu bokk na si mooy li nga xamante ne moom nga war a xam sa diggante ak yàlla borom subhaanahu wa taala sa diggante ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam sa diggante ak alquran kon bu boobaa jàng nga juróomi saar juróom benn saar pour jullee ko du doy waaye relation bi war a sa diggante ak borom bi subhaanahu wa taala nan la war a mel loolu da nga kaa war a jàng ni ngay toppee yonante bi alayhi salaatu wasalaam ni la war a keneen ku dul moom danga ko war a xam ko kon boobaa juróomi saar juróom-ñaari saar du doy kon sàkku xam-xam baas la ci li nga xamante ne moom mooy sa diine bokk na ci mooy alqiyaamu bil faraidi wal waajibaati diiniyati wa dunyawiya taxaw nag ci li nga xamante ne moom mooy say obligation yi war ci sa diine ak li war ci li nga xamante ne moom mooy sa adduna kon loolu julit bi loolu faw mu bàyyi xel beneen ba ñaareel ba mooy ki nga xamante ne nag moom moo jiite nit ñi moo xam nañ ko mën a tuddee moo xam amir la moo xam malik la muy buur moo xam rais la muy président ak fu mu mënta doon jub jubal jubanti bu fekkente ne bëgga na jaar yi bokk na ci li nga xamante ne war na ko teg ci kanamam bi ci njëkk mooy iqaamatul adli iqaamatul adli walinsaafi wa damaanu alxuquq ci li muy jiite mu teg ko ci li nga xamante ne moom mooy njub mu teg ko ci maandute du ko teg ci li nga xamante ne moom mooy li ko neex du ko teg ci li nga xamante ne moom mooy parparloo moo xam parparloo ci fi mu bokk ci wàllu parti wala ci mu bokk ci wàllu askan wala fi mu bokk ci wàllu diine sax loolu lislaam tere na la ko ndax bu ñu nekkoon sax ci dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla lislaam la ñuy àtte ñeneen ñi nga xamante ne gëmuñu lislaam maaru ci li nga xamante ne moom lañuy ñuy jëflante ak ñoom lislaam dakaa dakaa santaane am na mbir yu bëree bëri jamono jooju dañ koy tollu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi kon loolu njiit bi war na cee bàyyi xel bu baax a baax mooy mu maandu mu jub ci ñi nga xamante ne ñoom la ñoom la jiite bokk na ci mu fexe ba góorgóorlu li ñu tuddee kaaraange bi nga xamante ne ñëpp ci yem stabilité ak fexe ba vivre ensemble bi nga xamante ne ñëpp moom la ñuy ñaan mu fexe ba loolu mu bañ a nekk rek ay vœux pieux waaye mu nekk loo xam ne lu ñuy dund la lu ñu gis la bokk na ci mooy tanzizul qiyam ad-diniya wal aadati wal axlaaqi al xasanat mooy mu fexe nag ba renforcer li nga xamante ne moom mooy valeur yi nga xam ñun ci wàllu diine ak ci wàllu jikko jamono ji booy xool di suivre actualité internationale wala di suivre li nga xamante ne moom moy dox nit ñi bu ñuy wax rawatina ni nga xamante ne ñoom ñoo noot àdduna bi jamono ji am na benn concept bu ñuy galvaudé mooy les valeurs universelles ñun nag suñuy valeur ci wàllu diine ay valeur universelle la loolu foofu ñu bàyyi xel borom bi subhaanahu wa taala bi muy wax ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa ne wa ma arsalnaaka illa kaafatan dañ laa yónni ci mboolemu doomu aadama yi kon valeur yooyu valeur la yoo xam ne ñëpp a ci yem ñëpp ci war a dugg waaye ñenn ñi li ñu tuddee valeur mooy valeur universelle mooy valeur yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo ko créer ñoom ñoo ko bëgg a véhiculer ñoom ñoo ko bëgg a tasaare. démb rek am na ku ñu doon déglu ci benn ci yenn réew ci wàllu polygamie mu naan loolu bokkul ci valeur valeur de la république étranger boo xam ne mu fi am ñaari soxna ñetti soxna ñeenti soxna dañ lay génnee réew mi. koo xam ne dañ fay nekk woon am titre de séjour dañ koy nangu ñun suñu valeur lu tax dañ ko jéem a tasaare suñuy relation ak lu ak ñooñu lu tax warul tegu ñun ci li nga xamante ne moom mooy suñuy valeur ñooñu amuñu dara yàlla bi muy séddale jullit ñi la ëpp lim jox ci li nga xamante ne moom mooy alalu àdduna dañ koy xayma ci jullit ñi la kon ñooñu waruñoo imposer ay mbir waruñoo imposer ay valeur yoo xam ne dafa wuute ak suñu pas-pas wuute ak suñuy suñu jikko ay valeur yu baax lañ yor yu gën ci valeur yi kon dañ kaa war a promouvoir waruñu dellu ginnaaw ñun ñoo war a nekk ci kanam comme jamono ji nga xamante ne l'islam ñi ko porté woon nekk ci li nga xamante ne borom bi subhanahu moom la santaane ñuy jikk jikkoo jikko yonent bi alayhi salatu salaam wane ñu jiite adduna bi loolu lu jar a xel bokk na ci njiit bi mu impulsé ay yeneeni mbir yoo xam ne ñi réew mi mën nañ ci jaar jëm kanam moo xam ci wàllu njàng mi la moo xam ci wàllu wérgu yaram moo xam ti ni muy dimbalee nit ñi ba ñu am fi nga xamante ne foofu la ñuy suturloo ñëpp xam nañu nag état moom mënul jox ñëpp ñu liggéey waaye mun na créer ay opportunité yoo xam ne ñëpp mun nañ liggéey mënul jox ñëpp liggéey waaye mën naa créer ay opportunité yoo xam ne ñu bari ci nit ñi mën nañ am fi nga xamante ne fa la ñuy fa la beneen bi mooy mu concrétiser principe yi nga xamantene l'islam lim xam moy lu ñu al hukm ar rashid atte bo xamné bu jub xocc la atte bo xamné bu jub xocc la bil an nusus wa shafafiyya wa taqdim al awlawiyya bu ñu waxe nusus nak fi jubluwuñ ci rek euh texte yi nga xamantene mom moy texte diine waye texte yi nga xamantene créé nañ ko sax pour réew yi jëm kanam am na si nag yoo xam ne yu baax la te bu ñu fàtte ay taxi yu bëri bëri rawatina ci wàllu yoon rawatina ci wàllu yoon lu ci ëpp gaa yële ñu ngi ci inspiré woon ci li nga xamante ne moom mooy charia doonte waxuñu ko woon bi bi charia nekkee foofu ñu gis ne lii kat lu baax la biñ demee ba charia néew doole sax ñoom bi ñu ñëwee créé li nga xamante ne moom mooy seeni système ñu ngi inspiré wu ci li nga xamante ne moom mooy système ul islam ci wàllu yoon loolu ku jàng droit islamique nga jàng droit positif di nga cee boo ko comparé di nga ci gis lu bëree bari jàng histoire bi nga xamante ne l'islam mu ngi nekkoon fële ci Europe nga xam ne lu bëree bëri ñu ngi ko copier ci li nga xamante ne moom mooy euh, l'islam te l'islam jubluwaayam jubluwaayam ci wàllu aduna jubluwaayam ci wàllu aduna moy ci wàllu yoon mooy képp koo xam ne am na ah nañ ko jox ak xam waaye droit yi nga wala devoir yi nga xamante ne it war na ko na fexe moom it ba joxe ko loolu bu amee yenn borom xam-xam dañ koy wax mooy réew moo xam ne lu mel noonu am na fa dafa mel ne mu ngi appliqué li nga xamante ne moom mooy charia ci àdduna lool la des nag li nga xamante ne moom mooy sa diggante yow ak borom bi subhanahu wa taala war na nag ci ñi ñu jiite ñu fexe ba ñun li ñu am ci wàllu alal ci koom-koom ñu préserver ko mu bañ a nekk loo xam ne rek ñi fi ñëw ñoom ñoo koy jël yóbbu ko feneen waaye ñi fi nekk njëkk cee bénéficié wu balaa balaa keneen ndax borom subhaanahu wa taala bi mu séddalee am na lu mu ñu jox kon loolu ñun war nañ ci gis suñu bopp loolu lu war bu mu nekk jit ay wax mu nekk loo xam ne dañ koy dañ koy jëfee te séddale bi nga xamante ni moom la ñuy séddale mu nekk partage boo xam ne bu équitable lay doon. بكون سي تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب كم نين كاي واخا لوم كيل فو على على بلاص كيل فو نيول ولا نجي باي خيل بو باخا باخ دا فخ با ريومي نيك تي ليغا خامتاني موم موي التنمية المستدامة ولا المستديمة ولا ني تودي ديفلوبمون ديورابل تي لولو ييب لولو ييب نك لي سي جيتو تي ريو مو خامن اي جوليت نيو نك ني گوم نيو نك موي دي تامبلي كو تي فالور ييغا خامتاني سيغي دينه موم لاجي سانت اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي وخنا جلد nan la war a mel ci al istiqaama boobu jiit bi nga xamante ne jullit la nan la war a mel ñetteelu pàcc bi yow mi nga xamante ne yaa ngi liggéey ci foo xam ne nguur moo la fa teg lan moo war a nekk sa taxawaay bokk na ci mooy ixtiraamu alqiyami wal axlaaqi almihaniya min al iltizaami bi waxti dawaam والتحلي بالأمانة والإخلاص والنزاهة والشفافية بكرة na ci respect bi nga wax bi nga xamante ne yow miy liggéey war nga respecté li nga xamante ne moom lañ teg ci fi ngay liggéeyee nga fexe ba gor goorlu mu nek mbubb moo xam ne ngay sol sa su nek bo xamné kenn ci respecté waxtu wi nga war a xëy waxtu wi nga war a wàcc fiñ la teg dañ la faa teg ngir nga servir nit ñi jox la loo xam ne mën na am sax doyul waaye jox nañ la loo xam ne moom nga war a suturloo keneen koo xam ne ñëw na am lu muy wut foofu nga xamante ne fa lay fa ngay liggéeyee nga xam ne yow moom moomu moo la fa teg ndax ci ay impôts ci lañ lay ci lañ lay fayee kon lim soxla te mu jaar yoon nga defar ko ci délai yi nga xamante ne moom la luwaa teg wala moom la yoon teg ne diwkat war nga ko defal nangam bañ kaa woon kanam goo xam ne mooy na jox ma dara ma dog laa defal loolu moom mooy gën a tardé réew kon liggéey bi am li nga xamante ne moom mooy yoon mu leer nañ mel ni weer boo nekkee côté bële di nga gis côté bële boo nekkee côté bële di nga gis côté bële mu leer nañ maanaam mooy mu bañ a am corruption ak yeneen yu mel noonu bañ a jël li nga xamante ne moom nga am ci pouvoir tàmbale ko nag pouvoir bi gën a kawe ak bi gën a suufee bañ ko def rek li nga xamante ne moom mooy sa mbir bopp yow waaye xam ne réew mi moom moo la fa moom moo la fa taj nekk ci loo xam ne lépp loo xam ne dina yóbbu kanam réew mi ci ay intérêt yoo xam ne ñépp a ko bokk waaye maandu leer naññ doxal mbir mi ci li nga xamante ne moom mooy yoon loolu lislaam da ka sant bépp jullit beneen bi nit ki xam ne responsable la ci liñ ko jox sori nag bépp jikko xam ne mën naa yóbbee nit ki ci muy tricher ci corruption di am i jëfandikoo alal ji nga xamante ne ñëpp ko bokk jëfandikoo ko ci li nga xamante ne mooy intérêt personnel ak loolu loolu nag kii liggéey ci fonction publique ak commerçant yi ñoom ñoo ci yem commerçant bi dafay ba góorgóorlu ci liggéeyam mu respecté santaane borom bi subhaanahu wa taala ci li nga xamante ne moom la war a doxalee commerce mu am kóolute certitude ci ne wërsëg mu ngi ko ci borom bi subhaanahu wa taala lu muy fexe-fexe ci gañe alal ju bari jaarale ko foo xam ne du yoon na xam ne wërsëgam dina si jot ndax borom bi subhaanahu wa taala daf ko bind ba pare nit ki am sirqu tawakkuli ala allahi wa muzawarati al asbab wa xusni talab mooy wàkkilu dëgg ci borom bi subhaanahu wa taala ci commerce ak ci leneen yow mi commerce nekk commerçant fexeel ba am li nga xamante ne moom lañ tuddee as-samaha wa taysir fi al-bay' wa shira l'islam li mu santaane mooy nit ki yenn saa mën na am ay problème du am lu mu jëndee du am njëg mu ñëw leb leb dafay dafay rafet fay bor dafay rafet délai bi nga xamante ne la joxoon nga war ko fay bor amoo noo amoo loo ki nga xamante ne moom la lebaloon moo la am na comportement bu mu war a am ci yow loolu lislaam dakaa dakaa santaane moo tax ma ne sànki yam du doy rek ci jullit bi mu naan am naa juróomi saar jeex na mais commerçant bi lu mel nii war na kaa jàng nga xam ban relation moo war a dox digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy client bi loolu yëpp nag borom bi subhaanahu wa taala mu ngi ko dëxëñ résumé ko ci aaya bi di ñëw rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi alqulub wal absaar mu ne mooy ay nit ñoo xam ne commerce bi ñuy def maanaam du leen détourné ci di jaamu borom subhaanahu wa taala di tudd yàlla di taxawal julli di joxe azaka lu tax ndax yaxaafuuna yawman am na benn bés bu ñuy ragal kon seen commerce dina jaar ci yoon waaye commerce boobu du leen tere ñuy jaamu borom bi subhanahu wa taala commerce boobu du leen tere bu waxtu julli jotee ñu tëj ñu tëj seeni commerce dem jaamu borom bi subhanahu wa taala ñëwaat loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne da kaa jàngale te ñëpp war a teebar war a bàyyi xel gis nga bi muy wax ak commerçant bi li jiitu ci moom mooy ragal borom subhanahu wa taala ci li def mu ngi jaamu yàlla waaye mu ngi ragal bés kon bu boobaa li nga xamante ne moom lay pratiquer ci wàllu commerce ak yooyu dina ko teg ci li borom bi subhaanahu wa taala bëgg ndax yàlla subhaanahu wa taala ne boobu xol yeeg yooyu yëpp ak bët yi gisin ñi dañuy wëlbatiku te yàlla subhaanahu wa xam ne lépp kon jub bi nga xamante ne moom la ñu wax ci bépp nit ci société bu mu mënta doon fi muy amee daal mooy taxawee li nga xamante ne moom mooy li ñu yoonal ci ay actes yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala farataal na ko ci ñun ci alquran yonente bi alayhi salatu wasalaam leeral ko ci lépp ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngalewul rek julli ak woor ak génne asaka ñu tëj jàkka yi dem waaye lépp daf ko jàngaloon jullit ñi ci loo xam ne dafay doxal seeni aduna ak loo xam ne dafay doxal li nga xamante ne moom mooy seen seen àllaaxira kon loolu jarabaay xel la ndax borom bi subhanahu wa taala ne فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أكيدين الحديث سفيان بن عبد الله الثقفي ملاجم النبي عليه الصلاة والسلام من يو النبي عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أصل عنه أحدا بعدك وهمة الإسلام وقت جو خمنا بومك وخير دوتمك ولا كنن mu ne qul amantu billah waxal gëm naa yàlla gëm naa yàlla nag dafa am ay implication yu bëri mu ne ko nag tam mustaqim nga jub xocc ci loolu ci mboole mu santaane yooyu اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من علينا بالأمن والاستقرار على الحق والعدل والخير والاستقامة ونفع العباد والبلاد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى قوموا إلى إلى صلاتكم يرحمكم الله